nafaali xayrillaahu fi ndakaaru kulla zalli jarrawo makaaru bisub keroog lañ ko dugal gaal mu jëm ndakaaru bamba naa mu jiiri bisub keroog lañ ko dugal gaal mu jëm Dakar bambana mu jiiri fii laylatil jumhati lañ ko tabal ci néeg bu lëndëm noon ya ko lambal mu lamb daj ay gobarak ay rabu ñu tëj foofa dem mu des faag mu daal jublu xibla daal di kabar keroog mënta sujoot ngir tartar jàng fa saaru baqaraak imraani jibrilu tijji neeg balil am na fa yaari guddi lekkul naanul lu dul ci leer yàlla kooka waj'alnaa yawma wahshurnaa yawma laa yanfa'u maalun walaa banuuna illaa man ataa Allaha bi qalbin saliim yawma yaquumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illaa man azina lahu arrahmaanu wa qaala sawaabaa zaalika al yawmul haqq في زمرة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أجبنا اللهم أجبنا اللهم أجبنا يا مجيب يا قريب يا سميع هذا الدعاء منا وعلى خديمه الذي هو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 moo fi jaaroon bis naka tey defoon fi jëf ju màgg bu sell bu rëy ci ndigalu imaamu ratib ñu taxewoon fi nag doon jàng kaamil bi ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla gërëm yal na ko yàlla def muy hadiya ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi ak barke bi ki taxoon waraloon daje bi muy cheikhul xadim radiallahu yàlla taas si barkeem yàlla jëriñ ñu ci liggéeyam ju màgg bu sell boobu yal na yàlla defal ñu ñu fekkewaat ko fi ay at yu bare bare fekke bu rafet ànd ak wér ànd ak jàmm musiba ak ay bi nga xam ni moo fi am yal nañ ko yàlla sunu borom bi dàqal yal nañ ko yàlla fànqal yal na ko fi yàlla jële ba faw ba faw bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yëpp maanaam imam li mu def jëf ci rafet la ndax première manifestation ñaari rakk yi fii lañ ko defee woon si jumaa ji fii ci kanam mbaar mi deuxième mosquée donc bu ñu dellu seet ba imam xalaat ni war naa defal kamil Serigne Touba def na li ko war léegi nag li mu ci naan moom moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal tawféex del fanam aar ko sàmm xel mi ndax lu ñuy mën a wax daal bokk na ci ci teraanga Ndar moom imam yooyu ñi ko doon jàng itam te mu wóolu leen jox leen ko ñu leen di ñaanal équipe bu ak bu jumaa ji yëpp ndax man man mii di wax fii fu ma miin la tapis yi bi ma gën a féete xale ñoo ko daan laal donc xam nañu jumaa ji bu baax a baax a baax sant nañ leen gërëm nañ leen imaam nag xam naa ne dinañ ko boo na ko fekk ndax télévision bi dem Tuubaa bu woon nañu moom mu dugal ci kàddoom wax ci ñaar rakk Sëriñ Tuubaa yi ndax ku bëgg Sëriñ Tuubaa la imaam dafa jékki les barrières confrériques maanaam barrières yi gars yi def ci diggante yi confrérie yi imaam da koo jéggi moom du wax ci loolu day wax ci njëriñu njëriñu askan wi donc ndar yëpp war nañoo maase di ko ñaanal Cheikh Ahmed Tidiane Diallo fierté dëkk bi fierte fierté umma islamique ci turu président Ahmed Fall mi nga xam ni moo fi président ñaar rakkay bu di fi représentant du xalif général lii nee na mi ngi sant bu baax Cheikh ci idée bi d'abord ak application bi nii ngeen taxaw ba taxawal ko ñu koy sant dégg daal na ngeen seetloo Cheikh ci gannaaw Ahmed Fall kuréel ñaar rakk yépp ñu ngi koy sant maa ngi àndal fii Moustapha Diakhaté ak sëñ Amadou Thiam ñoo fi nekk ci kuréel bi ak Moustapha Fall ñoo fi toog ñu ngi sant ñëpp di ñëpp wasalaam. ñu ngi leen di nuyu ci turu imam ratib di rafetlu jataay bi sëriñ Ahmed Sarr mii doon wax mooy loxo ndey jooru imam fee jàkk way juróom bi jàkk alaaj Umar Diallo moo fa taxaw ànd ak sama mbokk bu baax mi di alaaj Badara Mar euh, maa ngi nekk ak alaaj Badara Mar mu nga xam ne mooy chargé de communication de la grande mosquée amee les affaires extérieures nekk ak bu Thioune ak Ganna ak mboole moo jàkki ji suñu Ahmadou Lamine ni nga ko waxee noonu la béréb bii miin nga ko lool ndax sa ngone yëpp fi nga ko def sëriñ Ahmadou jàng moo la jàngal alquran ak say morom yu bari yéen daan duy crachoir yi di lal tapis yi ajjuma di ubbi kaamil bi fii ñaareel ba sa jur yu baax yi alaaji amat saw kebe ak alaaji amat saw kato seen taxawaay ci jumaa ji ràññeeku la lool dañuy àndoon ak suñu way jur kon tey bu yàlla defee Ahmed Fall am teq-teq dem ci ñaanu gorom boobu nga xam ne tabaarakallaahu boole nañ ko sax ci ñaanu démb aljuma ñi ñaanal nañ ko tey muy Doudou Ndir ndax may mënoo suraan ndiir ku amoon taxaw ci jumaa ji la ci avènement wu alaaj Abdul Majib tapis yi nga gis yu bare moo ko fi defoon démb ñaanal lañ ko yàlla am nañu dég-dég ni foofu la sëñ Ahmed Sarr dem ñaareel ba imaam yaramam dafa xaw sutanti loolu tax egg siwu fi waaye ñu ñooy tànkam ñooy làmmiñam loolu tax ñu ñëw toogee fi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ku nekk xam na nag ni mu jeex Cheikhul Qadim ndax boo waxee mu ni ñoom ñi jàngi woon xam nañu Cheikhul Qadim jàngiwul waaye li mu wax li mu wax ci yonent bi salaal kenn waxu ko ci ba démb suñu padel mu sawaat saal mi bisin mi ngi ciy wax di wax assiru ma labraar bi nga xam ne Cheikh al Khadim bindoon na ko bi muy dëj ci géej gi ak li mu waxoon ci maam Omar maa bay kon bu journée du Coran am ngeen def ko fii ci jumaa ji yàlla ñu koy def ci jàkk yëpp yàlla def ren mbas mi am ci dëkk bi ñu imaam euh, euh, xalif bi joxe ndigal ni nañu wàcce kamil kon imaam du mën tënku lu dul ci loolu ñu wàcce kamil bi fii loolu mooy suñu wajof fii ñu ñaan yàq ci mbaaxu yàlla dara daraje Seydina Muhammad yal nañu yàlla may ñu fekkee ay déwén yu bare te mbas bi yàq yàlla dàq fi te keroog ba ñu naree wuju suñu borom yal nañu tase Cheikh Al Khadim ak bépp jullit bi jaahi Rasulullah jërëjëf ji